non sec nañ ko nañ sec sec sec bul dem xaar baal ñu ñu vous n'allez pas sortir la liste appelez-moi la presse la presse arrive Barthélemy Barthélemy close bi am na liste di ngeen bokk close Macky Sall moomu dëkk bi dañuy bokk ci élection yi. monsieur le maire monsieur le maire. waaw bu lan ma wax rek. déglu ko déglu ko déglu ko déglu ko maa ngi yow déglu ko. en tant que la sama boy ñu ngi ñëw. boy na rek. loolu touche pas. da ngeen for close benn liste. Chef, chef, ils sont invalides de notre liste. Mais mais parce que dañuy wax ak ñoom ñuy def ko dama ne il faut pas vous allez pas corrompre la liste locale parce que c'est pas comme ça que je comporte. waaye le maire de la ville je pense non non. on accepte la bat bat bat. non non. vous inquiétez pas. dama ne booy ñëw. dama ne ba gars yi ñëw rek. dem leen wuti renfort. dem leen wuti renfort parce que gars yi ñuy ñëw.

non ana ndayu ana ndayu dépose sa liste ne liste bi ta liste sera pas forclos monsieur le maire elle sera pas forclos non non attendez je lui parle daf leen entré je lui parle écoutez écoutez le commissaire écoutez le commissaire seen PC rek nga xaw jëlal sa PC rek après voilà on en discute pas de la même chose. Pas qu'il est Non, non, non, c'est pas ça. Non, non, il ne faut pas parler, il ne faut pas juger les résultats. Non, non, non, il ne va pas être. Comme ça, c'est pas raison.